Abdoulaye Diop démb toj na li nga xam ne mooy forum bi mën na la fula mooy jaay Dakar ndax nag ki nga xam ne mooy ministre malien bi daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy waa France maanaam bas ça suffit daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy africains yi nag maanaam ñoo war a confiance seen bopp ñoo war a gëm bopp ndax nag Afrique du continent boo xam ne maanaam dañu koy fawee continent bu Afrique bi bëgg na nag ay partenaire ngir nag daal di suqali ko ngir nag daal di développé waaye nag partenariat boo xam ne gagnant gagnant lay doona kenn ku nekk daf ciy gis sa bopp moom Abdoulaye Diop la ko xamle waaye tamit daan nay tuumaal ñi nga xam ne ñooy français wax na nag nag da ngeen di ñëw taal ba pare nag bëgg a nekk ay sapeur pompier moom Abdoulaye Diop daan wax ne nag am na yenn partenaire yoo xam ne maanaam dañoo soxla Afrique ngir développer ngir nag richesse bi nga xam ne moo nekk Afrique bëri na ay partenaires yoo xam ne richesse boobee la ñu teg bët te nag ñi nga xam ne ñooy africains yi ñoo war a yeewu ñoo war gëm seen bopp ñoo war a dëggal seen bopp xam ne nag Afrique nag bu dee day ko ci ay doomu réewam lay daal di jugee ndax nag bëri na ay occidentaux yoo xamante ni nag maanaam dañoo war a génn seen loxo ci Afrique am na occidentaux yoo xam ne dañoo war a génn seen loxo nag ci Afrique France lay gaar wale daat nay wax tamit na Afrique nag maanaam kenn wuru koo tànnal kan ngay waxtaanal kan ngay jëflante la amul kenn koo xam ne maanaam war ngaa ñëw ci continent bii di continent Afrique bii maanaam nag di tànnal ay réew naan leen waaw yéen wax leen ak réew mii bu leen wax ak réew mi journal bi nag nee na wax jooje na leen leer na ñi nga xam ne ñooy waa France ñoom nag ñoo ko daa di moom ba tey ci biir journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa dafa am loo xam ne ñoom mënuñu ko wanaasoo maanaam Russie gi nga xam ne nag mooy jëflante ak Mali loola la France mën nag daal di wanaasoo lëkkaloo gi Russie def ak Mali ba tey ci biir journal bi di Vox Populi nee na en tout cas li am ba des àll mën na la gis nga Mali ak ñi nga xam ne ñooy waa France dañoo ñëw ba Sénégal di fi defante dañoo ñëw ba Sénégal defante dañu doon defante Abdoulaye Diome nag nee na ko fukki at a ngi nii fukki at a ngi nii armée française maanaam nekk bët gànnaaru Mali lëkkaloo ak ay rebelle te nag loolee li nga xamante ni moo ci am dala maanaam ay réew yoo xam ne dañoo teg bët richesse yi nga xam ne nekk ci dëndu Afrique waaye ngay taal taal li ngay taal ba pare bëgg a nekk ab pompier loolee ci boppam mënta nekk yéen kaay gi de Libération dañu xibaar naan ñu Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllum finance démb ma nga woon ca assemblée nationale moom nag bëgg-bëgg ma maanaam mooy député simple yii ñu bañ leen a jëndal oto waaye nag weer wu dee ñu jox leen indemnité boo xam ne dina toll ci sept cent mille francs ba tey ci journal bi nee na nag bëri nee na nag député yi waru moo ko waral mooy ñii nga xam ne ñuy waa assemblée nationale dañoo violé li nga xam ne mooy loi bi ndax lu jëm ci wàllum loi de règlement 2021 ak nag ban xalaat la ci cour des comptes ama ñaar yooyee dañu ko war a séddale député yi te nag loolee ci boppam maanaam amu ci loolee violé loi bi la yéen a kaay gii de Les Échos xëy duñu xibaar nag naan ñu député yi démb ci assemblée nationale opposition bi dañoo lànk ba tëdd Sénat wa bañ bi nga xam ne bi a xam ne moo jëm ca conseil économique social et environnemental waaye nag waa nguur gi def nañu seeni dëbbal dëbbal ba ñu daal di koy voté yéene kaay gii di leen xëy di ñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi jamono ji nag maanaam ñoo ngi wër-wër loo Macky Sall ginnaaw Ousmane Sonko ak Nemmeeku Toura di ca faale jamono ji ma ngi waajal nag ab tournée ca diwaanu diaspora ba yéene kaay gii di lii quotidien nee na bëri nay cadre APR yoo xam ne jamono jii mer nañ ba mara day tàlli ñoom Aminata Sow ñoom sax nee na ñu nag gis nga lëngoo bii nga xam ne moo am ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa war a jeex mën la Benno Bokk Yaakaar moo war a tasa yéene kaay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall daat nay nommé Sewru nga xam ne ay jamono moo jiite woon syndicat bii di SAEMS yëngatu ci wàllum njàng meeg njàngale me ministre conseil la ko Macky def bu ñu sukkandikoo ci xelim ak Assane Samba waaye nag nomination yi ma ngi mel ni tulleegment la ci réew mi te nag lépp wàllum politique moo ko waral mën na gis nga alalu réew mi la ñuy jël di ko pasar pasare Macky di si recruter ay nit loolee sax gàcce la lii lépp nag Macky Sall dafa bëgg gagné élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la waaye li jaaxal nit ñi Macky Sall dafa am loo xam ne daf ko waroon a jàngate Macky Sall ma ngi recruter rek mën na la Idrissa Seck ba léegi Macky ma ngi recruter te nag gis nañ lu jëm ci wàllum élection Macky Sall ma ngi cay gën a deltu wa ndax ci élection locale yi ba muy wàcc bëri na ñoo xam ne fekke woon nañu Macky Sall waaye nag ba élection yi jàllee amulu ko benn njëriñ élection législative yi ba muy ñëw nag Macky Sall ñu bare bari recruter na leen ba élection yi jàllee ngeen ni xamante ni moo ci ama li am ba de Sall muy jël askan wi di ko politique loole la Macky Sall war a bàyyee du samay kaddu damay nettali kaddu yoo san Samb la ma ngi ci réew mi quotidien yéen i kayi gi di la vrai journal xëy di ñu xibara nan ñu Macky Sall nag ma ngi ñaawlu waaw saaga yi nga xam ne mooy am ci internet bi waaye xanaa Macky Sall moom dafa fàtte Koura Macky Koura Macky mi nga xamante ni maanaam wax ju ñaaw Koura Macky kenn jiitu ko se te tey député la waaye nag ki nga xamante ni mooy Kalifone Sall xanaa tamit kookee Macky Sall daf koo fàtte Kalifone saaga rek lay defa te Macky Sall mën na la ak moom ba tey ci bi nee na Fatoumata mii xanaa Macky Sall na daf ko fàtte yokk ci commissaire Cheikhna Keita ak Omar Sow mën na la gis nga bala ngay digle cangaay day fekk nga sangu ba pare yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne nag ñooy jël gaal gi di dem bitim réew ñi ciy faatu bëri nañu loola Sénégal nag lu toll ci trois cent trente trois sénégalais yoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci biir ndox mi a 2014 ba 2022 bi yéen kaay gi di Vox Populi nee na ca diwaanu Allemagne nag am na lu yoo xam ne soo muy tuulee danañu leen réew ndax kilifa yi Allemagne yi ñoo wax kilifa yi réewum Sénégal ne leen yónnee leen ñu ab boo xam ne dina xayma sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Allemagne ci anam bu jërul yoona yéen kay gi di source a nee na njombe am na ca AIBD foofee nag dafa am sàcc goo xamante ni moo fa ama mën na la ñaari scanner yoo xamante ni 4 milliards lay jara yéen kay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu Ama Baldé Gris Bordeaux seen jàkkaarloo bu njëkk 8 novembre